sëñ Amadou Lahad xasida li dañ bëgg a wax nga ñëwoon ci euh, rab waaw wàllam rab mooy lan jinne mooy lan xuddam mooy lan rawaan mooy lan lan la mën a yàq bismillah waaw mbirum rab de moom dafa doon loo xam ne daan li tudd lépp daanaka benn lañ mm-hmm. waaw daanaka dafa mel ni nga naan muus ak siiru rek muus ak siiru xam nga boo siiru xam nga siiru mooy muus moo mu mag mi waaw noonu daanaka boo nee rab ak jinne yëpp daanaka benn lañ ñëpp ñoo bokk lu ñuy def xëy nag am na ay wuute ci ci ci tolluwaay doole yi. Hmm. kenn ku ne ak nu ko yàlla ak dooleem. côté boobu li ma xaw a jaaxal rab euh, li nga koy jiñ ci sëy ak a gis doomu rab. ah am na da nga ko gisee sa femme yi gis nañ ba taay doomu rab. ah doomu rab. am ñu judd ñoo xam ne bu ñu juddoo. <laughs> Hmm? <laughs> Ah, yow ni judd na fi judd na juddoo sax gën a bopp lu ne. rab daal moom incha allah ku am faru rab caru rab yëpp da nga koy lijjanti bu baax a baax. alxuraan ba ñëwee fi bu ñu ko xoolee bu fekkee lu may dañ la dañ ko dindi incha lu baax comme ni ko ni mu mënee yàq nga xam lu ne ah. ñu ah, ko soxal. am am am am ay taalibe ji ne la yónni firi àdduna ñëw ku nekk bitim réew soit ñu tëj ko kaso ak ku nekk bitim réew euh, ñu koy waaj a ñu koy wër maanaam daal ñàkk na liberté daal kaso daal ñëwul ci kaso ku fa ku ci bëgg a ak ku fa nekk bëgg ba pare. loolu la waxoon laay waxaat rek xam nga man moom danaa dem ci loolu ci la ma xam. Hmm. waaye damay bëgg itam maanaam képp ku may dimbali ci loolu nga nekk koo xam ne da ngay jóg. da ngay jóg da ngaa jóg ba la nat dolee moom. Mhm. foo nekk ci àdduna bu ñu ko yëgee si yàlla def nañ ci ay kaso ba tey mhm. am na ci yoo xam ne moom yàlla yàlla na dimbali nañ ci ba xam ne kuñ ko defal li ci ëpp suñu borom dinaa def tawfeex ca loola. sëñ Amadou Lahad Khassida euh, même ku nekk bitim réew yor ñetti liggéey te ñetti yooyu benn bu baax gënal ko ko am kenn ko yor benn bu baax bëgg tamit dolli ci yeneen kaaraange bitim réew daal nekk si jàmm. loolu moom bitim réew ak Sénégal ak fépp ci yam képp ku julli rek ñaan mooy sa kiraay. Hmm. doomu itam bu bëggee tekki dara ci àdduna da hmm. takk dara. da mën naa nekk lu ñu sax mën naa leen mën naa nekk lu ñu nangam nag comme ñi ngeen yaakaar. Hmm. jàpp ni ñoom maanaam ñoo ñoo leen gën a jege suñu borom. nga dégg ñu wax ñu wax loolu kon suñu bilaat waxoon na waaw ah, nee na ko <laughs> maa am na loo xam ne du ma ko waxaat ci ay tel daal ndax muy mbiru kilifa la waaw waaye daal li wétu moom mooy foo maa ne ci adduna bi war ngaa fexe wut wéruwaay wéruwaay wéruwaay nag fi ñu commencé mooy ci say waajur lay commencé hmm. fexe ba say waajur xam ni ku am ci ñoom yéene nga hmm. ak sëriñ moom bala ngaa waxee sëriñ pare waxal say ko amala yëri say waajur seen nga nit hmm. da ngay fexe nekk garab sëñ Amadou Lahad Khassida ñu ñëw nag ci euh, beneen mbir boo xam ne ko ku mënul wax loolu moo koy def rab la. loolu nag nga xamante ne xam ne koy def. Mm-hmm. dama koy def de waaye noonu dafay am da am boo xam ni. Mm-hmm. du deñ. du deñ am boo xam ne day deñ. bu dee bi ki judduwaale moom du deñ. dafa mel ni mm-hmm. judduwaale ñàkk ngóor rek. nit mënu ko dindi ci àdduna. nit mënu ko dindi. waaw. macha ci barkeelu ci xasida du du la xasida yi nag laa. ah xasida moom. fi mu toll fi mu toll moom yaakaar naa moo tax maa xasida moom. Uh-huh. bari sax. waaw mm. ah, waaye fi ñu toll nii moom. moo tudd yëkkatan ndax ma ko gëj a def waaye daal. Mm. xasida daal sëñ mooy la xam moom boo génnee ci sama jëm man. waaw waaw dootuma nekkati dara. doo doon di lu ma nit di xoolee rek wala nit ñi di ma ko nawee rek fu ma àgg ci àdduna bi rek. Mm. gannaaw yàlla bu suñ borom jàllee ak suñ Tuubaa xasida yi moom ko may léegi nag ñu ñëwaat ci euh, beneen mbir muy nag euh, bilende bilende bu saf sàpp nag. waaw kaaraange na ndax kaaraange mënut a ñàkk day loo xam ne sax mooy mooy njëkk lépp fi même sax bayri ngay dégg yëpp maanaam kaaraange ko jot xam nga nit ki da loo fekkee. waaw maanaam bala ngaa uh, wut dara. ngay fexe ba dël sa bopp pare dël moom lu am njëriñ la. dël dël mooy dël sa bopp dël sa njaboot. dël mboolem loo xam ne maanaam yàlla da la ko jox mu tam nekk sa alal ndax sa sa fi ñu sa sa doom ak sa soxna. boo leen dëlee di def ci ñoom loxo loo bëgg loo bëgg la ñuy bëgg. loo bañ la ñuy bañ dara ci nekkul. léegi ñëwoon ñu teg ci mi-temps tegtal. ngóor bu gaaw yekk ak ku dara ak ku nekk mag. waaw maanaam ngóor ngóor moom lu gën a doon bëri wax la. Hmm. maanaam lu ci ëpp maanaam ci jigéen lay lay jaare wala koo xam ne day fay boppam ndax am na góor ñoo xam ne day fay seen bopp. Hmm. waaw xam nga nu ko tubaab di wax. mas mas la waaw ko saabu bi daal waaw. ah saabu. Ah, saabu dugg ci douche bi xet boobu la. ah noonu koy defee waaw loolu la loolu la. mais ngóor day loo xam ne képp ku juddoo wàlluwul rek. Hmm. moom bu la rek boo ñëwee fii dañ ci jàpp bu baax. ak nu ko mën di dalee muy rabak muy masturbé yow. waaw macha bu ñëwee dañ ci jàpp bu baax. mais accident yi ci dëkk bi moom moom yooyu lii naa. waaw ah, jóge naa Ndar di topp. topp naa fi topp naa kii topp naa ab ah, kii oto yi ñu tudd oto yi def jën yi. waaw camion jën waaw frigo yi. Mm-hmm. ma jóge Ndar ay quatre trois heures ay trois di daw noonu ci ginnaawam mu gis jini ci kaw mu taxaw mu taxaw ci kaw ci kaw ci kaw kii bi. waaw. jini ni melokaan bi du mel. matière bi daanaka daanaka woon suñu bëree. kon mu dugal ci émission. waaw bu nee dugal ko.